une di benn waxtu jot ca camp Dial Diop ak camp Leclerc ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou li ci gën a fës njiitu réew rafet lu taxawaayu armee bi ci karange réew mi président Bassirou Diomaye fay diggee gën a dooleel armée bi ci ngànnaay ak jumtuwaay mu doon jiite tey euh, bés bi nu jagleel armée bu Sénégal coow laa ngi wéy ci mbirum kay am photo Sonko mooy Diomaye te jox euh, élève euh, ca Ross Béthio syndicat jàngalekat gi di SELS di sàkku ñu bisi enquête ngir xam ku def lu ni mel ndax kenn warul dugal école ci politique Medina bari jafe-jafe jëm ci bâtiment yi waaye mab ba ci tali yu baaxul ak ñàkk ñàkkum karange li ci mujj mooy balcon bi daanu démb ba benn nit faatu ci ana lu siy saafara tontu li ci gëstu Kumba Sanjaan Fay liggéeykat bus tata yi di fësal seen i jafe-jafe bokk na si payoor yu baaxul ak anamu liggéey yu métte métti tax ñuy sàkku ci seen njàttigee ñu gën leen bàyyi xel la dañu ci teg xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram di ci gën a fës mooy MMA di nag combat bi war a dox tey diggante doomu senegal bi Reug Reug ak Anatoly Malikhine di doomu Russie li ci yéenekaay yi bu ñu noppee campagne bi di journal de la campagne. Elhadj Ndiogou Diène Kader Lo Abdou moo nekk ci machine bi mbokki ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar digg bëccëg gi dañ koy door wàllum yoon ak mbirum Aziz Dabala min fi fàttoon moom ak Boubacar Gannou tur ni koy wooye Wally kii di euh, Nabouley di fecc kat bi moom nag daal dinañ koy may bàyyam nëkkandiku boo xam te ne ànd ak contrôle judiciaire maanaam yoon da koy may bët ñu koy toppee mooy euh, complot ci faat ba kenn ak tamit àndandoo di defi ñaawteef kenn ci avocat am sax moom Nabou Leye daal di wax ni eh, mbir mi jaru woon sax eh, yóbbu ba fii ndaxte dara nekku ci moom avocat boobu xam ne ne nag li ñuy tuumaal Nabou yi dara amu ci eh, te nag dëgg dina jëpp ci mbir moomu ndaxte enquête bi mi ngi wéy Nabou yi ak juróom-benn nit nag ñu jàppoon leen ci mbirum faatu ñaari ñooñu di Aziz Dabala ak wall yi mu amoon nag ca technopole fii ci Pikine. ak wéy ci xibaar yi wax lu soxal bés bi nu jagleel armée bi ci Sénégal tey lañ ko doon màggal xew yi amoon sànq ca camp Dial Diop ci teewaayu njiitu réew mi chef suprême des armées ci loolu sax moom président Bassirou Diomaye Faye fësal na yéeneem di gën a dooleel armée bi ñu ngi en direct ci bi ak Seydou Nourou Baax mi ñu fa teewaloon Seydou ñu ngi lay nuyu. di la fay baax la njogu jën. xew bi la say mën a jàpp kan. waaw mooy li nga xamante ne moom moo fa am tey euh, Bassirou Diomaye Faye euh, di njiitu réew bu Sénégal nag yegg si fa tey jile ngir jiite cérémonie ba ko nag tàmbali waxtu euh, bu fukki waxtu jotee daanaka waaye laata mu ñëw nag jot nañu présenté euh, li nga xam te ne moom moo fa nekk ci armée euh, groupe bu nekk wala promotion bu nekk laata muy waaye daal li li ñu war a jàpp daal njóogu mooy li ñu doon waxtaanee tey mooy Sénégal war na liggéey liggéey bu tax ñu doylu wala am lu doy ci wàllu armée moo xam armée de terre la armée de l'air ba marine nationale ak yeneen ñu am ay jumtukaay yoo xam dafa daldi méngoog jamono loolu nag njiitu réew mi nag ci sax a na la demé ak plan biñ ci nas mu ngi tok teewlu ko ba ñu pay nak mom jël na kàddu ne loolu nag moom daanaka sa dafa bokk ci euh, vision bi nga xamné ne am nañu ko 2050 manam Sénégal am lu doy ci wàllu ngànnaay méngoog jamono di technologie ñu tamit tuddee ko souveraineté mu sax japp né ba mu jëlee kàddu loolu élection yi ñu euh, nek né bu jéxé ba ñu samp assemblée nationale euh, prochaine législature dinañ ci gëna a xel muy défense ak sécurité ap projet de loi dinañ ko fi yobbu dal di ko défendre dal ba Sénégal dal doon dëkk boo xam dafay daal di euh, am lu doy ci walwaay maanaam bañ a wekku ci kenn moo xam ci aéroplane la ay woto wala tamit ay euh, ngànnaay rawatina jamono ji nga xam ne ñu ngi ci sous région bi te xam nga ne laa njogu jën wax na ko sax ci jamono ji la daal yëf yi waxatul euh, rawatina sax li nga xam moom mooy mbirum terrorisme laa njogu jën ñàkkul ci kanam incha allah ñu ñëwaat ci ak sax ay son moom mi dañuy tamit di Bassirou Diomaye Faye jërëjëf Seydou Nourou Ba nekkoon en direct ci studio bi mu doon ñu toppal tey kon tey xew yi jëm ci Bassirou Diomaye Faye doon ko euh, teewee wax ci leneen mu jëm ci ñi nga xam te ni ñooy liggéeykat yi nekk ci euh, bus tata yi ñoom nag di naqalu jafe-jafe yi tar jànkonteel ci liggéey bi naka nan tam euh, payoor yoo xam ne demu nii ñoom nag ñu bëgg ñu gën leen a bàyyi xel saafara jafe-jafe yooyu ñuy dund Ndeye Mati ñiy liggéey ci bus tata mbuur yi la mu nekk ay dawalkati oto ay receveur ak ay contrôleur ñoom ñëpp nag ñu ne ñoo yam ay jafe-jafe ñi leen di liggéeyloo daanaka nawloo wuñu leen maam Sarr receveuse la. doo feebaree duñ la faj amuñu mbaar mu ñu toog basan musuñu ñu koo jëndal ku ci bëgg a tuur ndox boo demul kër jaambur ñaan doo ko def bala nga fay juróomi dërëm boo amee dëj duñ la jaale lijjantiwuñu la boo feebaree pare nañ ci yow jël nañ keneen teg ko sa place chauffeur liggéey na fi ba dee opérateur bi taxawul ni ay mbokkam gil digaale ñu dajalikoo nak ci seen aribus bi li nga xamante ne dafa jàkkaarloo ak marché syndicat bu mbuur nekk ci côté prison bi ibrahima ndiaye di contrôleur ni faaw tamit ñu wax ci seen payoor gi nga xamante ne daanaka du leen jëriñ lenn te dañuy liggéey ay heure yu bari fii da ngay gis koo xamante day xëy xëy nekk ak chauffeur am ay at xey benn jour dàq ko wala mu nek ak receveur am ay at xey benn jour dàq ko te benn chauffeur bii liggéey mooy xëy 6 heures du matin ba 21 heures voire même 22 heures doo ko wàcc ci salaire boo xamante ni la yàlla xam doy na heure bi ñuy liggéey dafa bari Cheikh mooy seen nawle dawalkatu oto bi nga xamante ne ñu ne kenn ci seen i patron moo ko porté plainte ñuy sàkku nag ñu ne ñu bàyyi ko ndax lañu ñu ko tëyee yenewul maanaa justice nag pour Cheikh Fall justice pour Cheikh Fall voilà muñ nag dafa am fu mu yem ñoom nag xam naa ni bañuñu ci dara mais ñun tamit bañuñu ci dara xeex bi ñun ak ñoom la ba juste au bout fu mu yem nii neex lu yile dawalkatu oto receveur ak i contrôleur ne ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu gersu leen ngir ñu leen régler seen i jafe-jafe yu bari yile nga xamante ne lim nañu ko te ñu koy jànkonteel seen i bërëbu liggéeyukaay. Ndeye Mathi Dieng Mbour rajo Futur Média. Ndeye Mathi Dieng ñeneen ñiy yëglu euh, ndax jafe-jafe yi dund mooy ambulant ak boroom taabal yi nekk euh, ci Kër Massar euh, dañ leen fa jële woon ñu daal di ñëwaat tax sax bu kilifa yi tàmbaliwaat nag di setal xàll yi ngir nag jële leen fa ñoom nag ñu koy méttitu di sàkku ci premier Ousmane Sonko mu daal di leen di taxawu ndaxte du li leen waxoon bi ñu bëggee falu am na tabax. bés yu metti le marchand ambulant ak tablier yu Kër Massar di jankontel ñaari fan ngi nii commerçant yi nak nag ñu fexé balal seeni marchandise ndax agent yu mairie yu Kër Massar Sud ñi nak takkader di leen jappalé sax ci opération de mo yi nga xamanteni ñu ngi koy amala am nañ 48 heures yo xamné ne ñu te ko xamné bu xëyee yewu seulmu ci marché bi lay ndéké bu xëyee ñu ni koy ay gendarme wax dëgg yalla journée du neex ñun nak suñu démb neexu suñu tay neexul waye suñu suba lañuy joy ndax xamuñu

yi ci anam yu metti bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñoom nag ñu bëgg sax autorité yi daal di leen di utal ab site de recasement boo xamante ni ñu fa mën a liggéey Aminata Ba Kër Massar rajo Futurs Médias Aminata Ba une heure tegal mi ñetti minute euh, ca Xoos Béthio Mbane ak Richard Toll pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar wéy ci xibaar yi wax ci leneen jëm ci coowal ay kay yoo xam ne dañ fa def photo Diomaye mooy Sonko en route vers la victoire ñu joxe ko nag ay élèves fële euh, ca école franco-arabe bu Ross Béthio loolu nag jox coow tax sax ba syndicat bi di SELS yëkkati kàddoom ñaawlu ko ne école bi kenn war ko ko ñoom li ñu bëgg mooy sax ñu ubbi enquête ngir xam nu def li ni mel euh, te tamit daan ñi bu ko jaree ñu teg leen ay daan ndaxte école bi. moo nañ ko mën a génne ci wàllum politique dañuy déglu euh, secrétaire général bu CELS Hamidou Diédhiou kenn amul droit dugal ci biir l'école ba lii di propagande politique li ñu gis ca Dagana yéeme na mënuñu ko nangu dàq nañ ko jàpp nañ ni du yoon erreur la parce que su fekkente ne da ngay da ngay yóbbu école xale école li fa war a jub li fa war a am mooy njàngale li di institution jàngale lii di valeur jàngale li nga xamante ne loolu la ñuy xaar ci sénégalais ëllëg école li sacré la école bërëb boo xam ne politique xaju fa xelu gone yi politique xajul ci ñoom kon benn parti amul sañ-sañ dugal li di li di lu mel noonu ci école ya man daf may fàttali li xewoon Kolda ñaari at ci ginnaaw wala fële ci département bi ñu na loolu war na mën a tax nit ñi jëlee ci jàngat jàngat bi mooy école ba nañ fa nañu libéré nañu nañu épargner xale yi yu bëri bokk na ci yooyu ne kay yooyu ñuy wax moom la ñu gis fële ca ca Dagana. nguur gi warul xaar sax war nañu ubbi al at blanquette kan moo ko fa dugal lan moo ko yëkkati ba nga xam ne bu subaa kenn foo mënta far fu ne du amati sañ-sañ def loolu ci l'école ba l'école moo ñu desee pour garder sunu souveraineté kon nañu sàmm l'école boobu bañ fa dugal loo xam ne xaj ak seen lay ànd ci diggante ba. mu nekkoon Amidou Diedhiou secrétaire général bu SELS di genn ci syndicat jàngalekat yi fekk nag jamono jooju ñi politique ñoom ñi ngi ci campagne électorale bi ngir nag yey nit ñi ñu wooteel leen ba su fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi ci loolu sax tête de liste nationale bu coalition sàmm sa gafa sàmm sa ëllëg Famara Ibrahima Cissé moom jël dogal ajandegum ay yëngu-yëngoom ci campagne bi ci diwaan yu bëri nee na li ko waral moo di wàllum karange ndaxte dañoo songoon nee na caravane am Tiwaawan ca Xombol loolu nag wóorul nee na sax jamono ji bakken mi ngi ci xottu gerte lu ni mel na fësal bi mu doon jënd ak taskatu xibaar yi ca Tiwaawan ñu déglaay kàddoom moom Famara Ibrahima Cissé ci micro Cheikh Anta Diop. di leen xamal ni suñu convoi bi nga xam ne dafa jóge Tiwaawan doon dem Kaolack dañ ko attaqué ci yoon bi ñu ko attaqué nag liñ ci jublu woon ñoom rek a ko xam parce que ay bakkan mënoon na cee rot ndaxte oto bi gën a bi ñu gën a laal mooy oto RTS bi ci chauffeur bi la ñu dóor li ñuy dóor heureusement vitre bi da ko yéegaloon mu toj vitre bi créé fa panique bo xamné heureusement chauffeur bi mu na maîtriser volant mais bu doon vitre bi yegaluko tay tey leneen la wax donc euh, mo taxone tay non seulement dañoo suspendre suñuy euh, activité politique mais ñu ne nañ wax ak population sénégalaise yéen ñëpp xam ngeen suñu ligne suñu discours suñu discours nak day déranger té amna ñu bëri ño xamné ne arrangé wu len parce que suñu discours dañ koo axé sur les services financiers de manière générale mais fàttali ñun association de consommateurs lañ boo pour dem élection L'association association de consommateurs faut ko dégué mooy kuréel gi nga pour que dundu askan bi wàññeeku dundu askan bi ci services financiers yi mooy xarala yu bees yi daanaka ci banques ci mutuelles les assurances, les téléphonie bi ci internet beeg yooyu am na ay région yoo xam ne lu mel ni région de Ziguinchor lu mel ni région de Sédhiou lu mel ni région de Kolda lu mel ni Kédougou Matam région yu sore yooyu yëpp suñu sécurité mais tu yegg fa mais quand même dinañ def communication mu nekkoon Famara Ibrahima Cissé jiite euh, list coalition sàmm sa gafa sàmm sa ëllëg fitna yooyu ñu nemmee ko ci campagne électorale bi euh, métti lool jigéen ñi nga xamante ne ñoo lañu investir ñu nekk ci list yi jongante ñoom ñuy woote jàmm ak dal ndaxte nee nañ Sénégal euh, benn bopp la kenn mënu koo xar Cheikh Anta Diop ñu ñëwoon fii ci Thiès gi ñu leen doon tàggat di leen wan jigéen ñi ban taxawaay la wala ñu war a am ci élection yi ak nu ñuy wotee ba bu ñu demee ñu man koo àggee fa ñu jógee ak askan wu fay yeewoo di góor ñeeg jigéen ñi ngir ñu mën a dem wote ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi Soxna mbay di spécialiste jëm ci wàllu élection nekk ci alliance pour la migration leadership ak développement. loolu moo tax ñu ñëw ci campagne bi. ñu ne nañ leen jox woo si seen base ñu tas ko ak seeni naataango pour wax ne nii ak nii ak la ñuy defee pour ñu def vote conséquent. Julie Cissé Bay Sawar bokk ci yombalkat yi moom it nee na jigéen ñi ñu war a am taxawaay lañu euh, ci wàllu élection yi sàkku na ci politiciens yi ñu ànd ak dal. am na lu ma leen waxoon 2021. lu dal njaboot gi suñu siddit lañ koy yëkk te violence kenn waru ko wootal kenn waru ko entretenir fu mu mën a jógee nous condamnons jusqu'à notre dernière énergie ces actes de violence ba pare Sénégal moi j'ai fait un constat ci élection yi le peuple est en avance sur ses politiques nañu def attention Hélène Tinit bokk ci intercoalition sàmm sa kàddu takku wàllu fii ci département bu Thiès. moom mii de nee na wax ci ñaaw jeeg xaxarante bi. bari na lool ci langue politique gi. fitna yi ci ci attaqué nit ñi. ak ci bëgg leen faagaagal Sénégal xamul loolu jàmm lañ xam ñu ngi ñaan yàlla lépp nekk ci jàmm. jigéen ñi ñoom tàggat nañ leen ñu xam bu baax lu jëm ci wàllu élection yi te it ñaax nañ leen ngir jigéen ñi ak ndaw ñi ñu am taxawaay bu dëgër ci wàllu politique. RFM Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta wax lu soxal wàllu mbay mi ak solaire loolu nag nekk na loo xam te ne lu baax la ci wàllum irrigation ndaxte day tax nag li ñu am di gën a yokku rawatina lu jëm nag ci wàllu mbayum légume te zone des Niayes loolu nag ab gëstu bu waa waa euh, IPAR ak CECI amal moo ko fësal ñoom nag euh, ñuy wax ne foog ñu gën a dooleel investissement yi ci wàllum solaire euh, su ko defee nag dina tax sax ñu mën a jàppale jigéen ñi dañ ci déglu soxna si di Maram Cissé di chercheur ca IPAR nekk tam ki ñu dénk projet boobu waaye kàddoom ci micro Youssouf Bodian dañu def gëstu bi ci zone des Niayes di xool ndax jigéen ñi bu ñu jotee ci technologie solaire yi nga xam da di permettre ñuy am ndox pour bay lan la leen di amal njariñ ñu gis ni njariñ yi bari na déjà bu ñu amee euh, solaire bi ñoom du ñu juqee ci ndox solaire bi moom pompeel boppam ndox donc loolu day wàññi diisaayu liggéey bi suñu amee solaire bi dañuy mën a arroser liy meññ day bare te bu meññeet bi bare day yokk koom bi su yokkee koom bi day yokk nu ñuy mën a téye seen dépense su kër te loolu dafa am solo parce que day dooleel taxawaayu jigéen ci kër gi te jigéen bu amee taxawaay bu baax ci kër gi njaboot gi lay jëmale kanam njaboot gi communauté yi lay jëmale kanam donc ñool moo tax ñu xalaat ni fexe ba jigéen ñiy bay ak góor ñiy bay jot ci solaire dina am lu bari lu muy jur ci sunu économie te sunu économie agriculture daf ci am place bu ngande donc fexe ba ñi nekk ci agriculture am ay jëfandukaay lu leen di may ñu bay ci ni mu gën a baaxee day yokk suñu koomu réew day yokk suñu développement mbënd yi ñu dund wan nañu ni climat bi mi ngi changé te dañu njott bu baax résultat yi wane ko que ni bu ñuy euh, jëfandikoo solaire bi day wàññi émission gaz à effet de serre yi nga xamante ni ñoom ñooy euh, dérégler climat bi et donc euh, loolu moo tax aussi ñu def un plaidoyer que ni bu ñu amee solaire ci mbay mi du baax rek ci koom day baax aussi ci jaww ji ak ci nekk ni mu nekkoon Maram Cissé di gëstu ca di borom xam-xam nekk ca IPAR ci wax ci Euh, liñ ne démb waxtu wi ñu ngi leen doon xibaar euh, benn balcon bu màbb fii ci Médina rue 3 angle 8 ba sax am ko ci ñàkk bakkanam loolu nag dugguleet ci Médina euh, lu weesu loolu tamit bâtiment yu màgget yi yeneen i jafe-jafe mi ngi koy jànkonteel ñàkkum karange ñàkkum tali yu baax naka noonu tam wàllum assainissement ana loolu lu ci pexe ak lu ko waral gëstu ko Massa Ndiane ay kër yu yàgg ñoo fi nekk te xëy na tamit nañ ko tabaxee. tabaxee jaalu yoon nañ ko waroon tabaxee. du lu bees lu ay quartier min la bu ci mel ni Médina ay balcon tabax yu daanu daa fekk ne tabax yooyee ni ñu koy defee baaxul duut ay boom xam-xam jëm ci mbir mi ñooy nekk ci ginnaaw Bamba Fall di meerub Médina di ñaawlu yi kaay yi bëree noonu ak liñ ci war a def mu des gannaaw liggéey bu ñu tàmbali woon mu gis ne loolee du domaine mairie état bi moo ci war a jóg. moo tax at mi gën di am ñaar ñett ñeent ba juróomi yoo xam ne sax dañuy dee ci balcon bu daanu wala bu daanu Ndakaaru la nekk ndax loo xam ne dafa trois kilomètres ak palais bi dëkk yu mag boo fa demee dëkk yi wër palais bi yi nekk ci biir capitale bi état da ciy def dooleem pour mu mën a rafet mais tey boo ñëwee atelier mécanicien yaa ngi fi bëri état boo waxee mu ni am naa ñoom programme nañ leen mu ñëw dina yóbbu mécanicien yi boo tourné aussi problème mu encombrement bu méttee métti mu fi te koo ci waxal mu ne damay daal sama doole aw ma fu ma jëm

wala nga improviser wu ingénieur lépp dafa am lu mu jaar yoon bu nu jaaralee mbir mi ci yoon mooy architecte xool càmbar bâtiment bi léegi bureau de contrôle mu contrôler ko xool ba xam loolu jaar na wala jaarul yoon loolu lii mooy li nga xamante ni mooy yoon dañuy négliger lu bare ba jëyi am waaye texte yi mi ngi fi daal pour que nu mën a fagaru muy indi ay loraange léeg-léeg yuy jur ay jëye mu bëri lool ci quartier yu mel ni Médina bâtiment yi léeg-léeg bu yenn yi te ñu di ci dëkk mi ci des moom tabaxin wi doy waax bi ci mujj guddib àllarba ba jàpp alxemes ab balcon bu daanu Médina ba benn bakkan rot ci ak lum ci mën a doon quartier yu yàgg comme Médina dëkkin wi dañu ko war a seetaat RFM bitim réew yegg si ci xibaaru bitim réew àndi ceek Anna Rocha soxna na ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax a baax Hadj Diogo. réewum Centrafrique lañ koy doore foofu nag tàmbaliwaat nañu àtte ba ca cour pénale spéciale.

cour pénale spéciale niki ñeenti fan ci weeru novembre ca Bangui bu ñu sukkandikoo ci RFI ñeenti doomu aadama yi nga xamante ni nag ñoom lañ ci joxañ baaraamu tuuma ña nga leen di toppee crime de guerre wala crime contre l'humanité yoo xamante ni amal nañ ko diggante weeru mars ak avril atum 2020 ci dëkk bu ñu naan Ndélé crime yooyee nag ñu xamal ñu ne ñi ngi ko amaloon na ci ay xiiroog ngaayoo yoo xamante ni mi ngi doxoon na ci ñaari faction armée yu Front populaire pour la de la Centrafrique yoo xamante ci ñàkk seen bakkana bu ñu sukkandikoo nag ci avocat partie civile bi nga xamante ni def na ab mission fukki fan foofee ca Ndélé combattant yooyu léeg ku ci nekk dangaa takkoon ay fulaar yu jaune te loolee nag nañu daal di gis ci ñi nga xamante ni ñoom ñanu joxoñ baaraamu tuuma teg si ñeent ñoo ñi nga xamante ni ñoom nañu joxoñ baaraamu tuuma bañ leen di jàpp fekk nañ leen ak ay jumtukaay yoo xamante ni pour xeex a ko tax a jukk ci loolee nag moom mu jàpp ni kon ñii liñ leen di tuumaal seen loxo setu ne cong yooyu le dañ ko programmer teg ci organiser ko bu baax Sarah. Soda cham dañuy ana wax bi yon ci soldaaru euh, mbotay xeet ya nek ci Mali euh, ñom ñep nak dañ fa juggé eh, gën ngaa yeex ci euh, weer wi ñu nek di novembre. Mm, fukki fan ak juroom ci wu novembre gi lañu wara abal réewu Mali lolé di xibaar bu ci communiqué conseil des ministres bi ñu daan amal niki bi ci ngone mission bi nak jeex depuis décembre 2023 gannaaw fukki at yo xamantene ne MINUSMA mu ko yëngu fofé ci euh, Mali euh, Bokotinuron ci ñu doon ar euh, diwan nga waaye nak kilifa yu bes yi ñoo jël dogal wala ñom ñoo ci conseil de sécurité bu ONU ñu daldi dakal bobé mission ñu daldi ci and conseil de sécurité bu ONU kon gën kaa yéex fukki fan ak juroom ci novembre gi MINUSMA dina abal réewu Mali MINUSMA ñu fatali force le bo xamantene Fuki fukki junni ci ay soldats yu jógee ci ay réew yu yu bëri. wax léegi ci euh, guerre ba ca Gaza ñu ëpp nag ci ñi ci loru euh, ci ay woowu euh, xale yu jigéen lañu jigéen lañu ak xale yu ndaw yi bu ñu sukkandikoo ci rapport bu ONU. mu di enquête boo xam ne mu ngi tukkee ci haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ñu daal di def seen gëstu bu wane ni ci diruk juróom-benn weeru njëkk yi ñu doon amal guerre gi foofee ca bande Gaza bi 70 pour cent ci victimes yi. ay tout tànk lu ñu itam ay euh, soxna ñu gis né kon dañoo jalgati euh, fofé euh, droit international humanitaire bi ba tay bu ñu sukkandikoo ci haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ci lu tolok 80 ci nit ñi ñak seen i lolé mu ngi am gannaaw ay attaques ñu doon amal ci ap ay immeuble résidentiel wala sax ay logement yu yu mel noonu ONU nak ak yeneen i réew ñom sa su dañuy sukkandiko ci euh, bilan bi nga xam ne moom mooy tukkee bis bu nekk ci ministère de la santé euh, bu euh, Hamas dañoo jàpp ne ay xibaar yu wóor lañu waaye nag Israël fitna bi bu mu tàmbalee ak léegi wala guerre bi bu mu tàmbalee ak léegi musuñu ànd ci chiffre yooyu nga xamante ne ministère de la santé bu Hamas de koy siwal ci ci guerre bi. jërëjëf soxna xibaaru tàggat yaram yusuf ba jean lañ ci ànal yusuf ñu ngi lay nuyu dala fay alaaj njoogu di nuyu ñëpp dañuy tàmbal tey ak lu soxal mma ak ah, combat bi nga xam te ne rek rek war na ko amal tey ci ca lumpin boxing stadium bu bangkok ca thailand lañ koy amal kon tey ah, moom mbaru sénégal bi dajak champion bu russie ñu tudd kon ah, anatoli malixine mom nak 14 combats 14 euh, victoires la am ken daanalu ko ba legui mu am ñetti ceinture mondiale yu mu yor titre champion du monde des lourds de la one one euh, championship Euh, lu mën a nekk la sunu sukkandikoo ci Moussa Togola moom coach combattant MMA la ñu déglu ko ci euh, gis-gisam jëm ci combat boobule. di njëkkee di gërëm di sant sénégalais yi gis nañ taxawaay nañ taxawee Reug Reug ci réseaux sociaux yi motivation bi message yi encouragement yi soo ko xoolee Reug Reug il a plus besoin de mental ci combat bi combat la boo xamante ne mental bi da ciy joué trop trop trop parce que boo xoolee kii di adversaire am Malahide combattant bu yàgg xeex la am na ci quatorze combats dix victoires par KO donc wax KO rek wax xeexkat la c'est un bon te aussi Russie cuune wuñ ci bëre seen bëre aussi baax na trop trop trop trop. waaye boo xoolee kii di rëg-rëg moom bërëm dañ koy jéggi côté xeexam la ñuy dem te boo xoolee jamono yu mujj yëpp. wàllum xeex bi mu ngi ciy yokk na si bu baax a baax def na say stage def na say amélioration parce que wàllum combat au sol bi amélioré na si bu baax a baax a baax travail na si combat bi waajal na ko waajal moom su mosuma ko gis mu waajalee combat ni mu waajalee combat bi muy combat lamb muy combat MMA combat bi ni mu ko waajalee c'est extraordinaire. te le plus important mooy mental bi ak envie bi tey parce que lii lu mu yàgg xaar la ceinture bi lu mu yàggoon bëgg la waaw di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey boo xoolee premier combat bi ba tey chaque combat dañ ci gis benn amélioration bu positif si Reug Reug kon am nañ yaakaar bu baax ne combat bi du yomb mais dina si am ndam bu sedd gu incha allah. Moussa Togala nekk coach combattant MMA moom jàppale ni bi mooy juróom-ñetteelu combat bu omarkan Kane Reug Reug Euh, moom ci wàllum MMA juróom benn victoire la am ak euh, benn défaite mu am kon client bu bu am solo ci doomu Russie bi kenn daanu ko ci 14 combats d'ici si dégg di toog laa wax mm-hmm. par kaw la kon euh, mm-hmm. adversaire bu am am doole la xanaa ñuy ñaanal Reug Reug rek yàlla génn ko ci mu am ndam amin yaa rabbi gannaaw MMA dañuy wax lu soxal wàllum basket ak basket à 3 bokk nag ci euh, festival Dakar en jeu tey ji ci àjjuma ji tey ci ngoon ca place de la nation la ñuy amal jongante yi diggante 14 heures ba 18 heures euh, qualification yi la ñuy amal ci tournoi basket a 3 bi ci jigéen ñi ñeenti équipe ñooy jongante Sénégal Gambie Algérie ak Nigéria ñeenti équipe ci Sénégal Gambie Algérie ak Kenya festival Dakar en jeu kon bokku ci waxtaayu Jeux olympiques de la jeunesse Dakar di dalal ci atum 2026. ndax lu soxal walum football ak équipe nationale locale bi euh, waajal Sénégal di waajal kon euh, dernier tour éliminatoire bu CHAN bi kon. gaynde yi kon moy nam ñuy ci euh, championnat local bi ñom ñoo yor titre bi ñoko ko Algérie dinañ dajé kon ak Liberia, ci wéru décembre. équipe bu Sénégal eh, di amal ay stage yu bari booba léegi bu ci eh, mujj eh, ci tubaab jalaaw démb lañ ko tëj sélectionneur bi ñëw kon waxtaan ak Sora Thiam ci wàllum waxtaa yi jëm ci match yu am solo yooyu la kay tàggat équipe nationale locale du Sénégal ak staffam jot nañoo xool lu toll ci juróom benn fukki joueur ci juróomi stage mu di nag ay regroupement yoo xamante ni dañ koy amal ngir waajal li nga xamante ni moom moo di ñaareelu tour jëm ci segg CHAN gi Souleymane Diallo. ñu ngi doog pare effectivement suñu cinquième stage ici à Toubab Dialaw. ça se passe très très très bien dans l'ensemble parce que effectivement léegi xale yi sont conscients de l'enjeu euh, du moment et que aussi démarrage championnat bi dimbali nañu baax parce que xale dinañ am benen niveau de compétitivité bu acceptable donc ñu ngi ñu ngi waajal bu baax a baax baax et puis on est dans d'excellentes conditions fi à Toubab Dialaw quoi. champion en titre nak nag daañu jongante ñaari yoon ak équipe bi di Liberia mu di ab adversaire bo xamanteni nak nag ay tàggat gaynde locaux yi jot nako ko ci premier tour segg gi. Euh, on connaît bien euh, maintenant l'adversaire léegi tamit euh, ligue bi da fay gën accès c'est vrai suñu exigence mais également exigence buy tax ñu jël adversaire bi également en compte quoi donc xam nañu adversaire bi léegi et j'ai eu l'occasion superviser leen au Libéria c'est l'occasion également de remercier la fédération sénégalaise de football la direction technique nationale ñoom ñi ma permettre ma dem xooli match boobu euh, au niveau de Libéria match boo xam ne dañ ko doon jongante ak waa Sierra Leone euh, léegi Libéria moo jàll xam nañu adversaire bi incha allah daañu sukkandiku si yooyu pour effectivement waajal match boobu baax a baax a baax a baax ñaari jongante yooyee nag phase aller bi ñu ngi ko war a amal diggante ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre phase retour bi ñu koy amal diggante ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ba tey ci weeru décembre gaynde locaux yi daañu duggaat ci regroupement fukki fan ak benn ci weeru novembre gi. Soda Thiam ca réew football bi euh, onzième journée Ligue bu France tey lay euh, door kon bu 19h45 jotee Olympique de Marseille mooy daje ak jàppale ni dixième journée bu Saudi Pro League te itam day door bu 14h45 jotee Al Hilal FC di club bu Kalidou Koulibaly mooy daje ak Al Etifak FC Al Ahli FC bu euh, Edouard Mendy daje ak Al Rehad bu 15h20 jotee Al Riyad di daje ak Al Nasser bu Sadio Mané match boobule 17h lay doon tey ci ngoon laaj Ndiob. jaajëf euh, youssef Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de du Doudoune NSIA assurance ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf sandarma bi di colonel Cheikh Sarr mi ñu mandat dépôt démb jël yóbbu kaso l'observateur mi ngi ñu wax li ko waral. ubbil yéenekaay bi tuuma yi ñuy toppee kii di Doro Gaye bokk na ci li yóbbaale colonel Cheikh Sarr ba tax yoon teg ko loxo journal bi mi ngi ñuy wax ay njaaj di escroquerie gu ñu ne mi ngi toll ci ñeenti téeméeri million contre l'homme d'affaires bi di Zaki Lola Sow l'observateur mi ko bind teg na ci di ñuy wax ne ci opération yu ñu ne dafa lëndëm ak i transaction secret yoo xam ne accusation yi nee nañ colonel Cheikh Sarr moo doon joxe instruction a fekk yóbbu na ma jàmbal jànce yoon ay attaque yu muy def jëmee ci premier ministre Les Échos nee nañu wax na nañu moo tax ba Ousmane Sonko porté plainte kii di Madiambal Diagne moom Madiambal Diagne yéeni kay bi nee nañu bi mu yëgee ne Ousmane Sonko da ko porté plainte dafa bind ab lettre procureur bi ngir xamal ko ne dafa nekk ci campagne électorale Ousmane Sonko mi ci campagne bi Le Quotidien nee nañu xàmmee siwu ko ak ko buy campagne ndax bi campagne bi tàmbale yi ba léegi kenn dégg ko mu wax ci mbiri criminalisation ngóor jigéen ci réew mi Bougane ne li moo di Ousmane Sonko fu nekk la daan toog di wax naan bu ñu jëlee réew mi dañuy criminaliser ak ngóor jigéen te ba ñu faloo ba tey waxatuñ sax lu ca jëm fa mu demoon démb ca Tiwaawoon moom Bougane Gueye Dany suur soi nee nañu sànni na fa xeeru réew ñi jiite réew mi ndax nee na autorité yees yi faale wu ñu këri diine yi bëgguñu leen sax te ni ñu doxalee mi bi Ba tête de liste coalition jàmm njariñ ñi ci xët mu njëkk Vox Populi li dalul am xel mooy ñi fi nekk ak ni ñuy encouragé transhumance ci diirub juróom-ñaari weer kese Abdoulaye Diouf Sarr Omar Anne yi ñuy wax ne dañoo dem ca Pastef Vox Populi mi ngi ñuy wax ne ñoom ñaari weddi nañu ko ba mu wecc nee nañu loolee amul kenn ki di Cheikh Omar Anne ci suur mu fay wax ne loolee lépp Macky Sall moo ko tëgg moo ko bëgg dugal ci bopp la déglu Pape ne ko li gën doy waar mooy fii ci Tambacounda am na fi ay jeunes yoo xam ne maa leen jox liggéey te ba woote jotee Pastef la ñu keneen ku fabu moo ki ñooñam fas yéene dem jàppale ji waa Pastef ci élection législative yi lii quotidien ne nañu mooy mouvement bii di jëf citoyen d'action njiital mouvement bi di Ousseynou Diallo di leeral ci biir journal bi li waral ba moom ko mouvement am ñu jël dogalub dem jàppale ji Pastef ci élection ànd ji ak waa Pastef point actu ci ñoom la xëy ba dañu wax ne ginnaaw Déthié Fall mi ñu defoon cinquième position ci liste bu sàmm sa kàddu te mu mujj dem fekki Ousmane Sonko Aji Mbergane Kanouté ma newoon ca e place bu liste takk wàllu moom it dem na fekki waa Pastef Maodo Malick dolli ci ne ci ab gëstu di étude boo xam ne waa jima def nañu ko wane na ne transhumance bokk na ci li mën a indi fitnay politique ci Sénégal ñi fabu di transhumé di fekki waa Pastef le public yéene a xam ba di ko laaj ci xët mu la ñuy ragal Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de du Doudoune NSIA assurance ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñi koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu la ñuy yem ne woon xibaar yi El Hadj Ndiogou nekkoon ci micro bi Kader Lo Abdou Khad ci machine bi. Euh, sa mbay ci digital bi ñuy gërëm baax Aliou Ba Kabdou Thiam Cheikh Tidiane Senghor ca production. léegi-léegi ni ñu koy defee kon seen journal de la campagne ak Georges de Diop jour ni ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laaj kon ñu jëbale la yi nga doxal. jërëjëf. législative anticipée bu 17 novembre RFM du des gannaaw ko ci RFM matin matin géew bi 16h45 jàpp 18 tëj candidat yeeg coalition yi nag ñu ngi gën di baral mbir ya ñenn ñi sax uh, li ñu war ci biir réew mi bëri na lool seen i activité nag saa su ne lañu koy def muy guddi muy bëccëg ay caravan ay meeting ay visite de proximité lépp ngi ci seen i programme ajuma gi ci agenda ñuy wax ci coalition Sam sa kàddu bu Barthélémy Dias ak ñoñam ñoom ñi amal Ap caravane si Petite Côte bi étape yi ñu programmé di sali ak Mbour coalition Waref, bu Amadou Akile mombatai manga tey ma nga Kaolack waaye tey jile nag lay jóge Kabatoki war a ngir amal fa ay visite de proximité waaye laata Diourbel commune Touba lay ñëkke mom nak tay ci guddi sax le prévoir jóge ci bi réew pour ñibisi fii ci Pastef les patriotes ñom tey jii la ndar direction euh, Louga ngir Amalfa fa caravane nationale ñu fas Luga déparé Louga commune état bi di Kébémer daru Muxti ak Darajolof, Jolof sax lañu bëgg amal ap meeting bu mag and ci kóolute ngir Sénégal AKS bu Abdou Karim Sall mom mi ngi ci maillots bi ak canelle commune pour Amalfa itamit ay visite de proximité Amadou Ba bu coalition naforé mom mi ngi ci sin Saloum bi tey la mu amal caravane ci département bu Kaolack Amadou Touba ñaan bu mouvement wax jëf tête de liste bu garab ADS jugee na Podor Louga la jëm bu dem amal fa ay visite de proximité coalition Soukhali transport ak commerce mom Manga nga Kaolack Alassane Ndoye ak kir ñoñam Transgambienbi Senoba Medina Wandifa fofé ci Carrefour Diaroumé waye coalition bi dina tek tankam ci Ndiaye dem ñu voté liste bi nga xamante ni mooy liste Pastef bu ko defee ñu daal di dëggal coppite bi nga xamante ni bëgg nañ ko bu ñu sukkandiku ci tëdd liste nationale bu Pastef mébétu régime bi mooy. fête du jour bi yóbbu ñu ca Sédhiou Sédhiou fa ñuy fekkee euh, ñu dem fekk euh, foofee euh, Bakary Konté salaamaaleykum Bakary. waaleykum salaam Georges Béti Diop. campagne bi foofu nu mu fa nu mu fa demee. waaw campagne électorale bi fu nekk nii ñu ngi bu baax ci biir campagne bi ndaxte coalition yi ñu ngi commencé dugg Sédhiou bu baax ku mel ni démb coalition takku wàllu ñoom nag ñëw nañ ci boobu nag euh, ku ko diriger mooy euh, PM bi ancien PM Sidiki Kaba bu APR ak Lamine Thiam boo xamante ne mu ngi bokk ci parti démocratique sénégalais ñoom nag ñu ngi egg fii ci naaj bu tàng 14h30 wante taxul askan bi génn nañu daat leen teeru teeru bu mag. si seen discours nag ñi ne Abdoulaye Wade moo daal di ériger Sédhiou def ko région président Abdou Macky Sall bu mu ñëwee nag mu daal di implanter infrastructure yi ba tax na nag ñu ne waa Sédhiou war nañu delloo njukkal daal di votel seen liste di liste takku wàllu keneen koo xamante ne ñëw na fii ci diwaanu Sédhiou ci campagne électorale bi daal di am mobilisation bu mag moo nekk Amadou Ba moom nag nekk coalition jàmm ak jëriñ moom nag daal di am mobilisation bu mag mi ñaawlu bu baax ñi daal di arrêté travaux de construction son beaucoup du budget mu ne chantier yëpp nek fi ci région bu Sédhiou dañ ko arrêté mu koy ñaawlu mi ñaan Ousmane Sonko mu ne na liggéey mu wañu wax ji lu muy wax bari na loolu euh, koku di Ousmane Sonko nek tête de liste Pastef mom nak daal di ñëw fi ci région bu Sédhiou ñi daal koy teeru teeru bour Ousmane Sonko daal di expliquer Sédhiou yi lu tax ñi daal di arrêté chantier beaucoup du budget mu ne boo ñi arrêté chantier yi ñu étude environnementale mu responsable APR yi ci régime bi lu ñu bëggoon 47 milliards yoo xamante ne dañ ko bëgg a séddoo ñoom nag ñi daal di teg seen tànk Thierno Alassane Sall di Sénégal kese ak waa sàmm sa kaddu daal di ñëw fii ci diwaanu Sédhiou ñoom Anta Babacar euh, Pape Djibril Fall ak Thierno Bocoum ñoom nag lu ñuy wax ñu ne projet bii di horizon 50 di le projet nekkul projet boo. États-Unis yi xam nga 52 états ñoo nekk États-Unis yépp fépp la ñu am ay représentants ñu ñëw euh, ñu laaj. nguuru Sénégal nga xam ne bi président de l'assemblée sax boobu Moustapha Niass yónnee woon nañu représentant ci organisation boobu ci euh, ndaje boobu euh, mu nekk monsieur Diédhiou euh, ñu laaj ñun ñuy diaspora bi comme ci nat dañu def dañu am nombre bu am solo maanaam jege nañu 4 pour cent de la population sénégalaise maanaam tam lu ñuy indi ci biir Sénégal Euh, lu 1,8 euh, milliard euh, d'euros ah mu organisation de développement international Madame l'aide internationale au développement li li ñuy bare bare li ñuy indi ci réew mi ñun lu ñuy diaspora bi li ñu fi indi moo ko. novembre lay doon ñaari euh, semaine yi nga xamante ne nag euh, la ñu defagum campagne naka la ko Ibrahima Bakhoum di euh, taskatu xibaar xeltukat ci wàllum politique gisee ñu déglu ko moom Ibrahima baaxum boo leen xoolee ñu ñëpp doole yemul bu doole yemul nag nit ñi koy wane doon lu yem. ah ki nga xam ne moom li yoon sax miin nañ ko maanaam ki nga xam ne moo moo féetee nguur exécutif. ñaari moom campagne am mooy gën a xumb mooy mooy ëpp nit bon euh, ci nekk na mooy kii xëy na benn dafa doon gan ñenn ñi doy la bu doon peut être ci waxi Ousmane Sonko ñenn ñi ba la ci nekk rek nga xam ne moo fi faral di am daal bon ñoom am nga possibilité am nga doole am nga moyen yoo dajale ay nit am na loolu yàgg nañ ko def ñeneen ñi fi yoo xam ne xëy na amuñ moyen yi état am maanaam li exécutif am waaye terewul ñu ngi koy def lu ñuy def donc moyens yi daal doole jéemul bu doole yemul nag euh, nañ nañ dañuy wone ci ci ci penc mi na wut waaye terewul am na ñoo xam ne yii euh, la ñuy wax am na solo liy gan ci ci ci ci campagne mais loolu gan la fi moo ñu dem ba ab candidat porte plainte beneen candidat ci biir la ñuy waxee loolu moom euh, man mosuma ko dégg laa wax. ci fii ci campagne Sénégal waaye waxante tëkkoonte loolu luy yàgg na fi. jeunesse nag dafa mel ni discours bi di ci leneen li nga xam ne xaw na ci bees tuuti mooy daa mel ni ki nga xam ne moom moo nekk exécutif donc nekk ci nguur dafa mel ni comme moom discours am ba tey discours yi opposant la maanaam. Euh, xam nga boo ko xoolee ñaare ki nekk si nguur moom dafay wax ne man maa def lii maa fi am lii maa fi mën lii maa def ñee di ko weddi waaye fii moom li tax tamit ñii kon comme yàgguñ fi yàggaay boobu seen discours mun tey nekk si bilan parce que loolu boo ko déggee ci campagne ci biir campagne mooy pour kat dem na ba liggéey na juróomi at wala liggéey na ñaari at wala jigéen ñett léegi lam defoon lay lay wone di ko def di ko di ko di pour ñu joxaat ko fii moom kii waxul deful campagne pour ñu joxaat ko day def campagne pour dugg maanaam waxin la maanaam campagne pour am majorité defee léegi nag parce que discours yooyu noonu miinuñu ko woon ci ki nga xam ne moo fi tëngoon opposition lañ ko xamee bu demee ne bu àgg ci euh, werante yeegi demee noonu dama xam ne werante ak weerante yëpp da loolu bu fekkee dafa dugg ci biir campagne mooy nekkoon seet mairie démb ak daaw barki démb la ñu guuxaloon kenn ku la guuxaloon sa morom da nga koy génne ñaan ñi nag comme ni ma ko waxee am nañu am doole wane ko ay bëri ay oto bëri ay nit ñu si bëri loolu yëpp na am ñoo xam ne ñoo wax dëgg li ñuy nuyoo dugg nuyoo dem euh, waaye dugg nuyoo yi dem seeti benn benn yi la ñuy wax nga di ko dégg ci télévision ci seen i discours tamit seen liggéey am na ci loo xam ne ji baax na lool bu ma sañoon ñi nga xam ne ji ëllëg jotaak ñëw ci assemblée bi ak ku mun doon euh, yan suñ borom bàyyi fi ñu ñëpp rek bu boobaa amna wax yo xamne ñeneen wax nañ ko feneen ñooñu kenn du leen dégg ci assemblée bi parce que dañ du buñ fa né xeyna waye lañu xalaat lañu wax lañu wax ne dinañ ko def amna na ñoo xam ne dañu dañ def nangam da xamu ne député lolu du walam waye amna na ñoo xam xalaat yi ñu génne ay proposition yi ñu génne man duma ne assemblée dina def li proposition de loi lay lay amna ci yu ma dégg yo xamne do mo sañon ñu aggé ko assemblée même bu fekk nañ ñi koy wax tay du ñom ñoo ko ñoo dem assemblée ña ña ko ñay dem te déglu leen nañ ko jël boole ko seen programme te buñu waxante ne no ki xalaat diw la xalaat du la xalaat bi ñëpp ko bokk

Amadou Diallo di yëngatu ci laboratoire photo moo nekk candidat coalition Ande Bessal Sénégal ci département bu Kédougou mu ngi bàyyeekoo fële ci Lande Baytil ci biir commune bu yi mu ngi wone boppam tamit ci koom-koom bu ñu ko éliré député Amadou Diallo fas yéene na def kemt lay kattanam pour génnee département Kédougou ci ndool bi mu nekkee. nee naa la Kédougou jafe-jafe yi bëri na. te yàlla ak politiciens yi ñoo mun a dindi loolu. man ci développement la teg sama tànk. xool naa xoolaat bu pare. ma il faut que ma dugg ci députation bi Kédougou. ñu voter pour man ñu fal ma dem assemblée vraiment défendre beaucoup de choses c'est vrai député du peuple la mais man demay né député Kédougou il faut nga mëna défendre Kédougou Kédougou sonu nañ bi ci njëkk moy défendre liste coalition fi ci département bu Kédougou laata mu yóbbu tawati ci assemblée nationale comme yàlla def na dem assemblée il faut am li ngay yóbbaane foofu da ngay am agenda maanaam jeunesse il faut nga recenser jeunes yi ñu bëri def ko ci sa agenda recenser jigéen yi coono bu nekk Kédougou fii yëpp nga def arrivé à l'assemblée vraiment da nga koy teg ci table bi mais bul nangu moog di tàccu ne wuy monsieur le président wuy même bu ñu saagee Kédougou nga ne wuy baax na da ngay ne non monsieur le président ñu ko jox war war nañu am pourcentage ci heure bu ngay wax nii anamu du ko gis da ngay donc euh, kon fay ak ndox mais comme amuñu leader politique bu gëkke dugg ñu nekk fofu yek bopam lañu soxla mo tan nous sommes en retard jabaté wallahi polygam na tollo ci juroom fukki at amadou diallo mu ngi dundé yaakar que coalition and besal sénégal dina am ndam ci diwan yu bari rawaté nak fi ci département bu kédougou ibrahima jabaxati kédougou rfm Warbek Mohamed Alimba tay ñu taxaw ci jaar jaaru politique bu Saliou Samb nek président conseil départemental bu Mbour mom nak

ce choix reflète une volonté de mettre la partie avant le parti en favorisant un changement fondé sur la transparence, la justice sociale et l'intégrité. J'en appelle ainsi à tous les militants, amis et sympathisants à se mobiliser et à voter massivement pour la liste PASTEF lors des prochaines élections législatives de novembre 2024 afin de garantir la stabilité institutionnelle et un avenir meilleur pour le Sénégal, fait amour le 24 octobre 2024.

man may seen président Macky Sall may seen Amadou Ba may seen Sonko may seen Khalifa Sall maay seen démonstration de force ci qui dernier présidentiel bi mom Saliou Samb xalé ak jigéen yi. su ma leen wax ngeen parce que xam ngeen ne man su ma ah voilà su ma mel ne ndax war leen di ñàkk kon jàppale leen ñu ñu mën a dem di di tibbi fële di andi fii te loolu mooy lan mooy président Macky Sall daf ma joxoñ kan la ma joxoñ non dama bëgg ngeen wax ko wala ma xam ma sama xel dal. xam nga ne ñëpp ñëpp ne Amadou Ba. jërëjëf Mouhamed Alioune Ba ci euh, var bi jërë ngeen jëf itam yéen auditeurs yi ci teewlu bi di gërëm Kader euh, Lo mi fete woon ci machine bi joxante dig daje ëllëg ci beneen journal la campagne.